a min asheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ma nuyu mbokki jullit yëpp rawatina mbokki taalibe yëpp fu ñu fi mën a nekk ñu nuyu ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu kilifa ñaan sunu gën na ko fee bàyyil yokkal ko ak wéram ak talam ak sagoom am gën a mën a taxaw liggéey bi jim ci am suñu dimbale dimbali ko ba mën ko àggale nuyoo bi nag sëriñ Mountakha dafa nu ko yónni yónni na ko ci Cheikh Xaban ngeen gis mu toog moom sëriñ Mouhamadul Fadilu yi nga xam ne ak bokki taalib yi nga xam ne liggéey bii ko sëriñ bi liggéeyloo dañ ko ci jàppale liggéey bi itam ñu mën cee yëgee rek di sëriñ Mountakha wax waxtu wu nekk waxtu wu ne moom day jàngale rek sëriñ bi di jàngale ak taalibe nam ko doon waxee ne mbirum sëriñ bi warta taxaw warta laal suuf waxtu bu nekk daa war di jëm ci kanam di gën a yàkkale moo tax itam faaw nu delluwaat dolliwaat ay kàddu di wax ne liggéey boobu nga xam ne sëriñ taxa daf ko doon liggéeyloo jàmbaar ja muy sëriñ Mamoor moom sëriñ Fadlu ko liggéeyloo ci alxuraan ko liggéeyloo ci yu bëree bëri joxoon ko wàllam ci liggéey bi Sëriñ Tuubaa bi ñu bokk ñoom ñëpp ñu bokk ko te kenn ku ne am ci yéene lool ku ne ci Sëriñ Muntaxa ndam itam ba tax na kenn ku yaa ngi déglu ndigalu Sëriñ Muntaxa ak lu mu la cee def loo nga sawar ca lool Sëriñ Muntaxa Sëriñ Sëriñ Muntaxa daan yónni Sëriñ Maamoor ay yónent ci liggéey bi Sëriñ Maamoor daan ci def passif ak yitte ak taxawaay bu rafet liggéey ko liggéey bu sotti bu yéwén bu rafet ba wàcc ñëpp xam ne yóbbaale na ngërëmul Sëriñ Tuubaa fam jëm yóbbaale na fa ngërëmul boroomam ndax loolu mën na ko xamee ci xoli bindeef yi xoli bindeef yi yëpp aman ci moom métit bi mu wàccee ñëpp masoon maase woon man koo seeral liggéeyam bu rafet liggéey bu yaatu liggéey bu sotti waaye Sëriñ Muntaxa itam ci xalaatam bu rafet ci wàllu sëriñ bi ak xam sëriñ bi itam xam ne lu mbirum sëriñ bi dara du ca taxaw dara du ca dellu ginnaaw noonu it la xamee ne njabootu sëriñ bi gii mu bokk liggéey bi ñëpp bokk ci moom yéene ñëpp bokk ci moom pas-pas moo tax kon liggéey bi kenn ku ci nekk lam la ciy sédd moom moo la ciy sédd la ca te wóor na ne wóor na ko ne bu la ca taxawloo sëriñ bi moo ci ànd ak yow loolu moo tax lii loolee mu doon liggéeyloo sëriñ Maamoor te mu rafetal ko bu wàcc mu di ko liggéeyloo sëñ Modou Xabaan mii sëñ Modou Xabaan itam ñun ñii fi toog ku ci ne mën naa seere ne gis na ne liggéey bi bi mu tàbbee ci loxoom ak léegi taxaw na ci taxawaay rafet yoo xam ne daf ci yitte yoo xam ne lu ci nekk yokk na ko ci kanam ndax mbirum sëñ bi daa war di yokk rek loolu de nun ñëpp seere na ne sëñ Modou Xabaan itam yëpp mooy liggéey boobu yi dox lool yàkkali ko lool rafet lool ba defee ko ni ko sëriñ Mountakha bëggee sëriñ Mountakha dama ko bëggee mooy na ko sëriñ Touba bëggee rek kon yàlla nañ koy yàgg ànd ba liñ ci yéene ñu man sëñ Modou Xabaan xew-xew yi fi jot a jaar jëm ci alxuraan lu ci nekk taxawoon na ca taxawoon taxawin woo xam ne dara mosu caa des lu ci ne weesu na fam daan yem tey jii kon mu amaat beneen liggéey boo xam ne sëriñ Muntaxa def ko daan yónni sëriñ Mamor waxtu woo jot mu yónni waat ma ne naa ko wax sëñ Modou Xabaan da ko koy yónni waat yónnent boobu nag ci bokki jullit yëpp la jëm bokki taalibe yëpp waaye dafa gën a jëm nag ci ñi nga xam ne dañuy féetewoo ci wàllu tool yi masalan noon baykat yi lañ yónni sëñ Modou Xaban ci noonu tey ngir àll bépp dañoo maase bu liggéey jotee fekk dégguñu kàddu sëriñ bi ndigalul sëriñ bi ci ne mën nañoo dem ca tool ya kenn du dem ca tool yi di jotoon ndigal ndax am murit def dara lu mu amul ndigal waxtu masaan jotit sëñ Muntaxa da ko yónni sëñ Maamoor moo mu joxe ndigalam ci bokki tool yi taalib yi nga xam ne ñu dem ci tool yi ne am nañ ndigalu doolu ca dellu ca tool yee waajale ko loolu yi nag la yónneewaat sëñ Modou Xabaan tey jii ngir mu jotti ndigal jottali ndigalul noonu ñi nga xam ne dana war dem ca tool ya mu jox nu ndigal man mën a dem ca tool ya waajali tool yi ndax tool yi kat dafa baax lool ci ab taalib boo xam ne poosam diisul lool mu mën a ñaq ba mën a yër sëriñ bi loo xam ne loole dana ko ko dana dana ca wone yéeneem ci liggéeyal sëriñ bi yooyu it bu fi dajee dana am fu mu féete ci liggéeyal sëriñ bi ndax nun ñëpp yàgg noonu dégg ne jobaa ji de tool yi àllarba yi ñoo ci daan jiitu ci Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Fadil ba rek may wax ne naa sëñ Muntaxa ay yoon mu dama wax ne bu ñuy soññee nañuy soññee tool yi àllarba yi ndax ñu gën a ndax ñu gën a mën a jàppale sëriñ bi liggéeyam bii kon tool tool yi daa mënta ñàkk ci liggéey bi ba tool yi àll balaa tool yi àll ba yi mën a am tool yi ci bopp dañu am ñu mën a ànd nag mën a ànd liggéeyal sëriñ bi ci yoon wii mu daan jaar bu ko defee nun itam danoo gis ne daaw sëriñ ba mu war a joxe ndigal joxe woon na ko waaye nit ñi da ci am ñu ci yeexoon a jublu yeexgaa jublu dafa am ñoo xam ne da leen yóbbee ak des ginnaaw ci liggéey ba te mu mel na kenn loolee ñaanul yàlla mu dal ren mu mel dañoo bëgg saa suñ ko déggee daadi di ciy jublu loolu moo tax sëñ bi ne sëriñ Modou xabaan na xamle ne waxtu jot na am nañ digalul dem ca loolu lanu sëriñ bi yónni woon kon sëriñ Modou Xabaar loo ci dolli rek ba mu taalibe yi xam ne am nañ digal li sag ñaan dolli ko ca ba la ñuy sumb mën a barkeel bañ ban ban mën am addiye loolu rek lañ ci sàkku bàkki asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bu ne asalaamaaleykum wa bokki taalibe yi. ñun bokki taalibe yëpp. maa ngi leen di nuyu. sëriñ bi ne mi ngi nuyu nuyu. Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi di nuyu. Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi leen di nuyu. mboolem ñi ñu bokkal islam. mboolem ñi bokkal islam bi yëpp. ci biir réew mi ak ci bitim réew mi. di leen sant bu baax. beral ab nuyoo nag. di beral ab nuyoo nag. ñu ñu bokkal sëriñ bi. ñi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ Touba. di ay bokk. di ay bokk. di ay ay seex. di ay seex. di taalibe. di leen sant bu baax a baax. mi ngi leen sant bu baax a baax baax. ci li wéy. ci li ci jëf yu rafet. ci yoo xam ne mënee su koo lim. ne mënee su koo lim. di ndokkal tam ci bis bis bi ñu dugg nii. di ndokkal ci bis bi ñu dugg muy weeru koor wu tedd wi. di leen ci ndokkeel di leen ci ndokkeel bu baax. di ñaan suñu borom mu àggale ko ci jàmm. di ñaan suñu borom mu mi eh, ñëw wax léegi. mi ngi ñëw ci li sëñ Cheikh wax léegi. daanaka lépp wax na ko. wax na ko li ma doon wax. wax ji day jànn. day day day ku baax rek. ku baax rek. li ma doon wax waaye li ma doon wax lépp sëñ Cheikh wax na ko. waaye sëñ bi mi ngi sant bu baax nee na. di leen gërëm. li mu wax ci ci tool yi. Eh, li sëriñ seex wax ci tool yi dafa wax ne asaka. wax ne asaka. daa bokk ci farata yi farata yi suñu boom lim ci juróomi ponk lislaam. dafa bokk ci ponk juróomi ponk lislaam yi. te mënut a taxaw. te mënut a taxaw. te te balaa taxaw liggéey ko liggéey ko indi. balaa taxaw liggéey moo koy indi. moo tax nag muy sa muy soññee nag. moo tax sëñ bi di soññee ci liggéey bi. te lépp ci taalibe yi itam. te lépp ci taalibe yi. ci tool yi lañ jëm moo tax nag mu bëgg nag. moo tax mu bëgg. ñu tàmbalee raxas ndab yi. ñu tàmbalee raxas ndab yi. di waajal ba suñ gisee lu lu xew yi wàcc di ba ba ba war buñ gisee xewal yi wàcc. mu bañ noo bett. mu noo bett. ndax yoon wi. ndax yoon wi liggéey rek moo ko yor. tàmbali Cheikh Moustapha. tàmbali Cheikh Modou Moustapha. ba ci ku baax kii di Cheikh Modou Mountakha. ba ci ku baax kii di Cheikh na ko suñu borom yàggal lool te ànd ak wér. naka lekk ci liggéey rek. ci ñaqu taalibe ci ñaq taalibe ci la mas a bàyyi ko seen taxawaay seen taxawaay doon lu ñuy jëgaani fenn doon lu ñuy jëgaani fenn li tax ñu mën a am ndigal li tax ñu mën a faj ndigal yi li tax ñu mën a faj jëfandikoo ndigal mooy liggéey mooy bu wax nañ jublu ci liggéey boobu ndax lu waaye di liggéey ndax lu waaye di liggéey la nga gën a xam ci la ngay liggéey la nga gën a xam ci la ngay liggéey ca nga war a jëm. a jëm te ku xam na ne murit. te ku ne xam na ne murit. ñaq la ëpp ëpp ëpp li muy liggéeyal sëriñ bi. ci aw ñaq la ëpp ci li muy la sëriñ bi. ñaan nag ku dégg kàddu yi. ngi ñaan ku dégg kàddu yi. mu daal di waajal tool yi. mu daal di waajal tool yi. daal di jublu. daal di ciy jublu. di ñaan mi ngi ñaan suñu borom. ngi ñaan suñu borom. génn ci koor gi ak jàmm. suñu borom génn ci koor gi ak jàmm. defal ñu ay tawfeex yaatu. defal yaatu. sëñ bi nag day koo xam ne. sëñ bi nag day koo xam ne. dafa yéene ñëpp jàmm. dafa yéene ñëpp jàmm. lislaam bépp la yéene. lislaam bépp la yéene. waxtu wu nekk. waxtu wu ne. lu ñuy jëriñ rek lu ñuy jëriñ rek. la ñuy wax. moom la ñuy digal moom la ñuy digal. ku ànd ak ku mel noonu la. ku ànd ak ku mel noonu. Eh, war a takk sa laxasaay foo toll. da war a takk sa laxasaay foo toll. lu jóge moom. lépp loo dégg lu jóge ci moom. muy ndigal muy ndigal. nga def ko na mu ko waxee. nga def ko na mu ko waxee. boo ko defee rek. boo ko defee. da da nga jëriñoo war a jëriñoo. bu ñu waaye bu ñu diibaanoo. lii ñëw moom. lii ñëw. day ñëw ndigal. day ñëw ak ndigal. bu bu la fekkee ci ndigal. doo ca doo ca am doo ca am jafe-jafe. doo ca am benn jafe-jafe. ñu ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi lool. ñu ngi ñaan suñu borom mu ko fi. te taxawu ko ko tawfeex bu baax. defal ko baax. waaw te ñëw nag. jii di ñëw. moo wax la moom ñu daal tàmbali liggéey bi. waaw te séntu ci nag euh, ndimbalu suñu borom. séntu ci borom. yàlla na ko fi yàlla yàggal. yàlla na ko borom yàggal lool. yàggal njaboot gépp. yàggal njaboot gi. ñi ñi aju ci moom ñëpp. ñi ci moom ñëpp. mooy ay ay bokk la. mooy ay bokk. di ay seex. di ay seex. ak bokk yi. ñu ngi àndoon ak bokk yi. nga xam ne ñoo bokk ña liggéeyu liggéeyu liggéeyu xam ne moom ñoom la bokk liggéeyu alxuraan bi. waxtu ne su su ndigal jógee ci sëriñ bi rek. saa bu ndigal jógee ci sëriñ bi. ñoom ñu laxasaayu ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi. na sëñ bi defal tawfeex. na la sëriñ bi defal tawfeex. ci lépp rek ci lépp. wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf.